jërëjëf jërëjëf soxna Fanta am nañu mbégte euh, di leen ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral sama télévision bi waaye tey boo ñëwee kër Seydina Limaamu da bég xam ni yàlla ay mbiram moo koy sottee di ko séddalee nu mu ko soobee moom borom bi subhanahu wa taala waaye discours euh, imam Mouhamadul Muxtaar boo ko jàngatee réew mi kenn ku ci ne war na amaat beneen taxawin defar at sa toogaay waaye bi mu daanelee si Mouhamad Lamine jël la mu wax sunu sëriñ si mbaax gi ci ñoom ak tab gi ne ci ñoom nit ñi xamuñu ko sax ñoom lu ñu yor séddale nañ ko jaam ñi waaye taalibe euh, war na sellal jikkoom laabal xolam seen na limaamu dundam fii ba fi ñëwee benn kàddu ngay dégg mooy laa ilaha illallah te day dundal xol bu saxoo ci yow doo jëw doo wax lu dul dëgg doo nekk ci lu bon doo def lu bon di nga yéene ñëpp jàmm tàggal sa ruux dundal sa ruux kon soxna Fanta ëtt bii di ëtt say kër Seydina Limaamu euh, tey ji yaakaar naa ko fi ñëw di jullit sa xol laab tey sa sedd na am nañu wécc. ñu ngi lay fay soxna si ñu ngi lay fay. waa macha allah waa xam nga ñun yàlla dafa dogal comme dañu tënk si ay kilifa li ñuy wax rek mooy dañu taataan si suñu ay kilifa te sang bi li mu wax léegi ñun ñëpp dégg nañ ko. mooy ñuy doxe njub doxee yar doxee teggin doxee xorma waaye itam doxee surtout li nga xamante ni moom moo di doylu dafa am solo ndax euh, ñun réew mi ñoo ko bokk jàmm am fi ñëpp la jig ñàkk jàmm jigul kenn kon li ñu war mooy ñu bokk nday bokku baay ku nekk li sa moroom nekk man boo ko d'accordul nga nangul ko ko te yàlla rek tax ndax yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp nangul ñëpp moo tax mu bàyyi fi ñëpp bu doon ku mu nangulul jële fi kon heure bi kenn waxatu ko te itam ñuy suturaalante sëriñ bi wax na ko nëbbalante ay ayib waaye tey lu ñaaw moom la ñuy wax lu ñaaw moom la ñuy fësal lu ñaaw moom la ñuy génne. Euh, ñu euh, dem di wax ci loo xamante ni mooy dëgg moo fi dugg suuf. du fi jóg ba ilaa yow mi din rek déedéet jarul ragal ndax kàddu dëgg moom ku koy wax da nga da ci wet waaye ñi ñi nga xam ne xëy na ñoo moom kàddu gi. danañu buñ seen biir yé xol danañ yëg na li ngay wax dëgg la yow waxal dëgg te yàlla rek tax ndax dëgg dëggug yàlla la te ku nekk boo koy wax wax ko rek sa diggante ak sa boroom réew mi daal nañ ko waxtaane bokk ndey bokk baay ñi war a jàngi jàngi ñi war a liggéey liggéey ñi war a defi da leen dem defi leneen soxna si euh, bi nga ah xaj kabir moom suñu xarit la suñu soppe la borom États-Unis borom jaama ngi jaama ngay way boromam ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal chaîne bi itam yàlla barkeel ko si barke soppe eh, fa tabarak xaj kabir suñu soppe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka ñëpp bàyyi xel jërëjëf mais duma leen ni kuy jullit ku dul jullit sax war nga fi teew si man la woon démb man la tey te ku ñu bind rek ci baaxu ki doon démb lañ la bindee mu ñëw ni tey man la kon moom tey moom la neewul baneen yonent laa ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ñu daje fii la xaaje boppam fii weex fii ñuul mu ni Seydi Awliin wala axiri doyatul mu leen ku ci am looy jox Mamadou jox ma bu ëllëgee bu ñu dajee ca kanam bu mu dul man poñe ma kon kii ñeme na fi mu jëm woote yàlla mooy deme nii woote kaneen du deme nii non téeméeri at ñeent fukk ak ñett bàyyi laay bul foog ni ñi rek ñoo ñëw def ni maa ngi woo nit ak jinne rawaan ak ci woote yàlla bi kaay leen wuyu si mu woote yow doo wuyu si yow woote yàlla doo ñëw ci yiwu yàlla wi ci jàmmi yàlla ji ci leeri yàlla ji làqu junniy at fi ci ngor du xool fu mu war dal tubaab yi tuddee almadi almadi te Baay Laay woo teegul almadi jiitu almahdi booba leer ga la ñu ñoom te ñun ko mu ñëw def fi junni at fu mu dal dal ci ñun di le sauveur de l'humanité su wootee doo ñëw diine andi la ngor andi la mbokk andi la wala teg say maam andi na la wala reen teg njabootam andi la kon Serigne Mamadou Makhtar mi ci jal bi na yàgg ci jal bi ànd ak wér ak nit da nit atteel sa bopp sa moroom seedeel sa bopp sa moroom loo bëggul ñu wax la ko bul ko waxe loo bëggul ñu def la ko bu ko jëfee loo bëggul ñu doxel la ko bu ko doxee bàyyi lay li mu wax dafa leer fonkante leen bëggante leen ndax gaaye ca àjjana dañuy bëggante te àjjana laa leen yéene fa ngeen war a waaw wan ñu ni dàq naa askan dàq naa sant ak lépp ñu ni kon ci lu ñuy wéeru bon bu ñuy bàyyee suñuy sant mu ni laay Ibrahima xalilu laay Moussa Kallama laay Iseeru wallaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasululahi kon nañu wuyoo laay te jëfe nu ñu demee ci yàlla nu ñuy jëfe nu ñu demee ci yàlla mu ne bu kenn faat waxtu te bu kenn dugg jàkk te jàppoo góor jigéen mag ak ndaw jàpp leen jaamu yàlla saxal leen seen lamiñ la ilaha illa allahu bu ngeen ci canaliser di ngeen egg ca yàlla bu ngeen dërmalee buntu yàlla mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen teg ci sayduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ki la jox lii kenn amul lu gën ni kenn amul lu mel nii kenn amul lu dàq ni yàlla nañu fi ñëw ay appel yi appel yi appel bàyyi laay woote dem ay doomam ak ñëpp ne fi mais bàyyi Seydi Thiaw siiwal li yal na yàlla fayal ñu ahli bayti Seydina Limaamul Mahdi man data Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam tey mbégte kontaan na am ndax euh, discours bi sëñ bi def tey c'est un discours d'actualité dafa wax loo xam ni dafa am solo trop trop trop waxulu ko waa ahlu laayeen mais nag daf ko waxal Sénégal gi waxal ko àddina yëpp ndax fi mu doon jamono ji tërëri na ji yàqu na réseaux sociaux yi yàq na àddina bi surtout rawat na sunu réew mi di Sénégal wax ju ñaaw jeeg wax ju bon ji te loolu yaakaar naa ne moom la jëkkoon a wax nañu nañu nañu ay ayib kenn ku ne di wax sama ci lu baax su nee nag ba àddina kenn ku nekk la ngay wax doo ci xam dara di tuumaal nit ñi di sosal nit ñi yaakaar naa ne dafa jot tey jii discours bi mu def nii xoolaat xam ne li mu wax ni loolu foofu lañ war a teg son tànk di wax lu baax wax ju tey ju yiw di wax sunu mbokkum julli wax ju tey lu nu xam ci lu bon ñu nëbb ko lu nu xam ci lu baax ñu génne ko te ñun aussi ñu jéem a defar seen bopp ndax kenn ku nekk boo defee sa bopp rek àddina bi defaru te loolu dafa am solo yaakaar naa discours bi mu def tey c'est un discours extrêmement important c'est un discours boo xam ne nii discours la te yaakaar jeunesse bi war na noo xoolaat discours bi ñu def ko vraiment loo xam ne nii euh, day nekk ci ñoom téye ko jàpp ko xam ko ba yaakaar naa ni yaakaar naa buñ ci jógee buñ jàppee lii rek déglu li wax déglu ko ak sunu xel dañ kaa dégloo xol yaakaar naa bu si fi jógee Sénégal dina defaru addina dina defaru ndax yaakaar naa loolu lañ soxla tey jii fi ñu toll nii présentement waaw jërëjëf. mooy symbole Laayeen suñu juddu ba bàyyi laay wootee nee naa la weex tàlla lañ ko xamee mu yëkkati baat bi jox ñu ko fu ñu mënti daje rek sol lu weex parce que yow gisoo nit bu génnee addina lu weex lañ koy jëkk laxas su su su su su su ganee àddina lu weex lañ koy laxase mais buy delluwaat ci boromam dara du ko topp dul percal bi mu diggal ñu nag percal bi moom lañ sol ni ñu war na xam percal bi lan la war a xam valeur am war ko jox cër parce que kii boo ko solee da nga war a respecté sa bopp parce que dafa sell te waroo ko sol fi ñu ko soxlaa muy suñu géew yi yàlla say naa li ma am daal yàlla ñu ko yàlla fayal. sama xol dafa fees. xanaa tënku ci rek enseignement bi ñu tënku ci mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi sell gi yiw gi dal gi teey gi ak yaru gi surtout yaru gi surtout wane suñu symbole fu ñu mënti toll loolu fierté lay dool suñu kon sang bi kenn amul fayam. kon kontaan nañu Laye Makhtar Laye Makhtar. nañ la euh, gis nga xalif euh, bi kaddu yu mu fi yëkkati ñii euh, dañuy sukkandoonte te gis nañ ni kaddu yooyu ci ñun ñii jigéen ñi daanaka la gën a bari tey boo xamee sa ayu morom tey jii nii yàkkamti nga. ba génnee ko publier ko ma bëggoon rek yow en tant que jigéen royukaay lan ngay wax tey sunu mbokku jigéen ñi. waa côté boobu dañ fay santaat yàlla parce que sang bi waral woote bi li mu wax dimbalante yërëmante jàppalante euh, nëbbulante ay turaalante li sanga bi wax léegi parce que moom loolu la fi bàyyi loolu la ñuy wax saasu ne te buñ ci tëngoo tënkoo yàlla tàbbal ñu jànnatul firdawsi kon donc ñun surtout ñun jigéen bàyyi laay dafa jox jigéen cër de bàyyi laay dafa jox jigéen cër tuddaloo ko yàlla utal ka place ci jàkk parce que dañu ne woon jigéen baatam awra la muy tudda yàlla mais ñëpp roy nañ ci Seydina Limaamu ñëpp roy nañ ci Seydina Limaamu kon loolu nga wax noonu sang bi tëjee ko kàddoom nan ci tëgg ndax réseaux sociaux yi toj na weerante bi waxante bi lu bon ak lu ñaaw amul njariñ surtout ñun jigéen ñun jigéen ñi surtout parce que jëw bi ñun la wax lu ñaaw lu ñun la weerante bi ñun la yàqante bi ñun la te ñun ñoo jur ilimaan yi ñooy jur yonente yi ñooy ñooy jur wàllu yi jur xutbu yi kon nan li nga wax noonu dañ ci tënku enseignement say naa limaam dafa rafet buñ ci tënkoo rek yàlla tàbbal ñu euh, yoonu muccam di ñaan yàlla nag ñu may ñu at at at mu jot ñu fekk ko yàlla ñu koy fekk ba mu doon téeméeri at di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen ay journaliste yi ci góor yeeg jigéen ñi yàlla oyofal oyofal leen waa sax macha allah wax dëgg yàlla mënuma leen lim yéen ñëpp ndax ku nekk ñuy introsé bëgg ñu wax ndax li wax naa ko sànq li ci ñun du ñun yàlla suñu borom la li tax nit ñi bëgg ñu tamit du ñun du ñoom yàlla la te ku xool sànq ba depuis ma toogee ba léegi sama xool daf tooy ku nekk ngi daw ñëw ndeysaan daanu di jooy ndax laa ilaaha illallah lu dul diina duy teggin kon yàlla ñu yàlla fayal Seydina Limaamu alayhi salaam te ray ñu ci diina ji ka yàlla yoon yónni mu wooteloo ko dekkal ñu ci yàlla buñ ci beew yàlla buñ ci rey yàlla buñ ci gis suñu boppa yàlla buñ ci yàq yàlla buñ ci yàqule lu mu ci mënti doon daal heure bu ñu jugee rek na jaam yàlla yi bég ndax amuñu lu dul ñi nga xam ñoo ñuy béggee ñu leen di béggal kon yàlla ñu gis ñun lu rafet lu baax ci barke Seydina Limaamu xol bu sedd doy na ñaan xol bu tànga doy na ñaan suñu xool sedd na di ñaanal sanga bi muy maam Dudu Maxtaar xalifa yàlla ñu ko fi yàlla bàyyil may ko wér ooyofal mbootoom rakkam yi topp ci moom di axlu bayti rasool yàlla may leen wér yàggal leen fi jubóole leen di ñaanal saaba Mame Baye Laye yàlla defal ñëpp jàmm tàmpa xol yi ñu teewe ko at yu bari waaye di ñaanal ku ñu dul mës a fàtt suñu weex-weexu suñu meññantam xol suñu uratal ay na muy Chérif Abdoulahi ndax bay na tool bi aar na ko képp ku maanu xam nga ko du ñu jot ci sàmm ko surtout Seydina Limaamu alayhi salaam baay Baye Abdoulaye yàlla ñu ko yàlla fayal ndax matal na matale na jotale na wasalaatu wasalaam ala rasul yaay Moxtaar maa ngi koy fay bu baax Kabir maa ngi koy fay bu baax ndax déggante nañ États-Unis na ko yàlla defal jàmm ci barke maam Baay Laay ndax ma nga fay def lu lu neex ba fa demee daaw déggante nañ fa ndeysaan di ko ñaanal yàlla moom ak sama frère bam fa nekkal di pàppalaay ndax bu toogee bay diyoo noonu sa xol day neex yal ko yàlla defal jàmm ci barke maam Baay Laay ci Chicago ga nekk yàlla defal leen fa jàmm ci barke Baye Laay kontaan nañu lool jërë ngeen jëf laay Makhtar